الناس نقروا القول قد ما تطلعي وحدك ndax mooy la may wax chaque jour rek ñun dañ ñoo fàtte ne ñun bokkatuñu si Sénégal ñun waa Fouta moom génnoon ñu Sénégal léegi nag am nañ ci boppam moo ñu autorisé woon sunu marche dem ba mu nekkul ba ci mujjee mu bàyyi ko ok mais li ñu métti mais li ñu ma li ñu métti mooy ña a xamante ne ñoom ñoo waroon taxaw tey walluñu ña nga xamante ne tey ñoo waroon doon suñu a ña nga xamante ne ñoo tey ñooñu waroon dalal nga xamoon tey ñoo waroon fajal ñoo ñu dóor ñooñu ñoo ñooñu ñoo ñooñu toroxal ku boo ku la toroxal nag sa biir kër bu mbedd bu la toroxalee du la métti muy Farba Ngom muy muy moom Ablaye Daouda Diallo. Ablaye Sall muy Moustapha Sy muy muy Racine Sy jërë ngeen jëf yéen ñëpp jërë ngeen jëf di ngeen Sénégal émergent yéen ni ngeen émergé waa Fouta mais yéen yéen jeunesse Fouta bi ni mooy seen émergence ah. xeexuñu

leen ne xoqatu mënatu leen ñoo xoqatal ba ñu ña doon nelaw yeewu nañ ña xamul woon xam nañ jóg nañ taxaw yëpp nañ te kenn mënu ci ñoo téye eh, gis nga fuuta bi fuuta tampi hande fuuta tampi ay gor lañ di leen nag di leen koromp di jox xaalis ñun kenn mënuñoo koromp ah ñun dara fokk suñuy bët ñun dañoo rekk démb tey door a ñëw ñun Fuuta ñu ñor sunu askan ñu ñor sunu xeet ñu ñor boo leen xalaatee ne mën ñoo suul boo leen suulee fukk ñaar fukk ñu taxaw di leen